xarit yi ngi di euh, nuyu xam ngeen dañuy su di ak émission du week alors tout simplement man maay njëkk laata ngeen di parce que wax suñu plateau bi day plateau bu coloré macha ak ñi nga xamante bi ñoom laa euh, bokkal liggéey bi euh, damay ñaan rek comme ñi ngi ci vraiment week-end bi que famille retrouvée parce que c'est vrai que pendant la semaine voilà on prend un peu de temps pour nekk ak suñu

Dieye alors maman Dieye nam ñu di loon keroog mbokk yi doy na waar wax wax dëgg yàlla waxtaan nañu ci parce que nag ah euh, am jëkkër ju nga xamante ne bi dalay aay boppam mbokk yi doy na waar waaye loo gis rek euh, macha allah borom yi xam-xam euh, dafa am nu mu war a tëddee parce que nag téere yu mel ni alxuraanu karim macha mbokk yi lépp daf ko ci dañ ko cee tënk ci biir kon nag ba ca kanamee dinañu am benn imam bu nga xamante ne bi dana waxtaan ak mbokk yi bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ànd ak madame Cissé Codou Mohamed alors day alimentation wu xale yi ci xale lay alors bien manger pour bien vivre loolu la la santé tout simplement ci assiette mbokk yi la nek. kon nag dinañu xool fan la jëm ak ñun ñu jóge ci loolu mbokk yi daal di ànd ak suñu xarit madame Gay Maymouna alors dafa ñu jël jeune entrepreneur bu nga xamante ne bi euh, macha allah euh, dafa def benn imprimante 3D mbokk yi dinañu xool bu ci kanamee ak madame Gay Maymouna Alors, alors dañuy kontaan aussi ak Fatma euh, c'est vrai que look yëpp rafet Machallah, macha allah li ngeen sol rafet na waaye damay kontaan ci Fatma parce euh, l'Afrique tout simplement alors euh, Fatma je euh, le sol ñu nuy képp ku nga bi émission Tam Tam Mali alors Fatma ñu indil dafa façon que indi vraiment mbir yi avancé na bu baaxa baax dinañ fan nañu jëm ak mom. mbokk yi lima jaaxal man dégguma keleng keleng dégguma grattoir dégguma dara mais mais ana Iba. Ah. Euh, salaamaaleykum euh, yaa xam euh, di la nuyu di nuyu ñi nga bokkal plateau bi di nuyu ñoom it Léna ñoom it Fatma du ma fàtte aussi ñoom it Roly di ñëpp daal fàtte ma kenn koddu tey nag moo leen seetloo néew ma si plateau bi wante di wax ñi ñu seetaan rek tous les samedis sur Tam Tam que Iba yàggatul semaine prochaine rek je serai dans l' émission. Euh, jusque dafa fin de affaire mais sur déjà les réseaux sociaux aussi donc je vous wax euh, di rendez-vous semaine prochaine et bonne émission à vous aussi allez à bientôt. ah voilà nak euh, euh, mbokki euh, mom kay ni la monon démé rek en tout cas rendez-vous incha la semaine prochaine ak suñu xarit Iba mais bu nu fàtte nag weekend bi on peut en profiter pour def ay petits plats alors justement ma jox ben astuce Iba mi ngi ci réseaux sociaux yépp kon nak mun ngeen xol les ateliers de Iba am rek lo len concocté pour le week-end mbokk damay am mbégte sa su di fégok ñi nga xamanténi ne bi ñoom laa bokkal bi alors damay nuyu bu baaxa a baax madame Cissé Code Mohamed c'est toujours un très grand plaisir di fégok yow machallah couleur yi nga ñu indil tay rafetna waye na la ñu indi daf ñu neex parce que léeg-léeg dañuy xawa jaxlé ci alimentation xalé yi té loolu dafa bokk ci sen santé bu baax a baax mm. ñoo ngi lay nuyu di la dalal c'est toujours un très grand plaisir plaisir euh, toujours partagé euh, Yaham ma lay nuyu du nuyu sama collègue yi ma bokal plateau bi du nuyu xalé ci mbokk yi ñuy sétane rawatina sama doom yi xalé yi ñom mom wax dëgg yalla euh, je pense que ñom c'est les plus fidèles téléspectateurs de Tam Tam mm-hmm. ak sen ay parents donc tay li ñuy waxtaanee mooy wàllu lekk ma mm-hmm. bëgg ko lool ni ci nekk ci plateau tamit <laughs> naka non fi mom surtout ben cameraman bu ñu jàkkaarloo lekk rek la bëgg <laughs> donc aujourd'hui nan lañu lekké lekkee mhm. yan habitude yu baax la wara am ci lekk mhm. pour ëllëg ñu mëna a nekk en excellente santé du dundu ci anam yi gën ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baaxa baax sa suné ne dañuy am mbégte bu mag mbokk yi di feggoo avec la belle maman Dieye mais léeg-léeg maman da fay a yëndal bop yi parce que yi muy indi fay doy waar doy na waar dañu ne jigéen joo xamante ne bi dal jëkkër ji da koo aayi boppam waxtaan nañ ci nag waaye nag dafa fekk nag ci alcorane karim machallah mhm. lepp dañ ko ci dexeñ mhm. loolu nak amna lu ci téere bobu lay wax. Mhm. mama nak ñew na ci ak ñun. Euh, bu ko défé dinañu xol imam bi dans quelques instants waye lata loolu mama dama lay nuyu dina la dalal jàmm. di kontaan sa suné machallah macha allah di fekk ak yow. Euh, mbégte beeg bànneex bi mom c'est partagé ñoko bok donc man aussi kontaan na torop ci fekk ak yow di sante yalla biñ fi teewaatee ci jamm ak salam di nuyu ñima ma ci plateau bi muy sama naataangoo ak aussi téléspectateurs yi nga xamné ñom ñoo sa fola RTS2 di ñu sétane sa su nekk di xaar nag samedi bu jot histoire de couple comme ni ñuy xaaree yeneen rubrique yi mais daal xam naa ne daal nit yi daal bi ma génnee ñi ngi ma doon wax naan moom mais mama yow li nga wax ni foo ko teg <laughs> mais jëkkër dina takk jaboram te du ko kii ah. loolu yàq la mooy la looloo fi xew <laughs> <laughs> ba tax na xam naa ne si kanam tuddi dinañ ci xuus ak imam bi laajte ko nag diine ak l'islam lan la tëgal ci loolu noonu ak ki nga xamante ni la nii deful li ko wax ci soxnaam yan daan moo ko ci mën fay très bien maman ñu ngi lay gërëm la belle maman Dieye alors ni yegg c'est aussi elle est toute mignonne elle c'est Fatma Fatma alors Fatma sànq maa koy wax tissu bi euh, voilà daf ñuy fàttali rek bëgg loolu d'ailleurs euh, suñu xaritu yi nga xam ne ña nga fële Mali euh, tay nak da nga ñu indil Fatma Les bu nga xamante bi légui en tout cas jigéen ñi pas seulement les africains hein, mhm. jigéen ñu bëri dañu koy utiliser ñu xol dal fabrication bi fan nga jëm ak ñun Fatma maa lay nuyu c'est toujours un très grand plaisir de te recevoir merci Yakham le le plaisir est partagé mhm. mang lay fay di nuyu téléspectateurs u RTS2 yëpp di nuyu itam ñima bokal plateau bi

énergie mhm. waaw opportunité yi nga xam ne euh, les jeunes sénégalais mën nañ ko saisir ngir def ci dara ba tax ñu dem euh, dénicher benn jeune étudiant bu am 23 euh, ans mhm. moom nag dafay jàng lu ñuy naan mécanique ak conception industrielle daal di créer nak mhm. avec 5000 francs yaa xam tiens-toi bien ben imprimante 3D très bien li ñu naan nopp dalootu na te dalooti na te loolu lépp mi ngi xewee RTS2 et itam tam et c'est toujours comme ça <laughs> ñu ngi la ciy gërëm di la sant waaye mbokk yi ñu dem nag xool lan la ñëw ah beau, hein ah, Merci, c'est signé Madame Fatou Djei, responsable RTS2, qui m'a encore habillée aujourd'hui. Alors, dañuy dem euh, mbokk yi Maman euh, Mama Djei la belle Maman Djei lan la ñu indil tey mbokk yi ñu dellu si l'islam mom, nekkul pour góor nekkul fi pour femmes, mais pour nit ñëpp la fi nekkal lu wax ne góor gi su ko ñu fay ko. su ko bàyyee ñu punir ko loolu lay wax tamit jigéen ji su ko defee ñu fay ko su ko bàyyee ñu punir ko surtout ci diggante ñaari way dencante dafa am ay euh, conditions yoo xam ne ni maanaam droit ak devoir yoo xam ne dafa war ci diggante ñaar ñooñu nga xam ne kenn ku ci nekk dafa war sa diggante sa morom yi nga xam ne ni moo ci gën a taxaw te nga xam ne góor gi da ko war a yoral jigéen jigéen gi yore ko bu ci jiitu moom mooy dëkkoo boobu ndax bi ñuy fas sëy di ko tuddee définition bi li mu doon wax dafa wax ne moom mooy lii dagganal lii validité li nga xam ne moom mooy lewal bànneexu góor gi ci jigéen ji jigéen ji bànneexu ko ci góor gi loolu moom mooy mariage maanaam contrat boo xam ne dafay tax bànneexu ci jigéen ji dagan góor gi bànneexu ci góor gi daggan jigéen ji kon kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar da war a bànneexu ci sa morom léegi nag su fekkee loolu am na ñu bokk ci ñu war a def nga xam ne ci lañ bokk seen diggante kenn warut a bàyyi moroomam jigéen ji aaye nañ ko bu ko borom këram soxlaa mu bañ naka noonu tamit góor gi aaye nañ ko bu ko soxlaam soxlaa mu bañ walla nga xam ne ni dafa nekk égoïste boppam rek lay xalaat saa yu amul envie du ànd ak soxnaam te saa yu paree bàyyi na ko loolu su boobaa day indi ndaw si di bañ sax li nga xam ne moom mooy wàllu jëm ci wàllu lan sëy léegi beneen bi moom mooy dañoo war a ànd ci lu rafet mooy ku nekk day jéem a def lu baax jëm ci moromam su fekkee ne kenn mànkil na boobaa li nga xam ne moo ci topp mooy muñ kii na muñee lii li ko naqadi muñee ko li ko neex kee muñ li ko naqadi muñee ko ko neex ñuy xool ci kaas bi li am bañ a xool li vide ba jamono nga xam ne danañ toog daal di dindiwaati la li yonent bi sallallahu alayhi wax na ne jullit du bañ moromam ndax bu bañee benn jukko ci moom am na beneen jukko bu ko neex loolu nag ci àq yi nga xam ne dañ koo am ñoom ñaar la kon su fekkee ne ñi ngi nekk ci biir néeg néeg di sëy jigéen ji toog gis na ne borom këram jox ko ak xam te deful luy waral ñu jox ko ko maanaam ñu bañ ko ko jox su boobaa moom nañ koy tànnaloo rek su ko neexee bu fa toogoon maanaam cent ans ak cent dimanche ñu koy waxee di sëy te joxuñ ko ay mais demut benn yoon réclamer toog di ko muñ kooku si la lislaam du ko wax dara mais nag saa yu demee ba gis ne mënatut a téye boppam maanaam mënatula mu li nga xam ne nii moom la ko borom këram waroon a jox su boobaa yoon da koy wax mu jug taxaw dem ci yoon ne man damaa soxla sama bopp te sama borom kër joxuma ko ñu ne borom kër gi kii da nga war a jox àqam su amee 4 mois yoo xam ne ni dañoo toog borom këram àndut ak moom ñu wax mu bañ lislaam da koy teg ay daan moom. ndax alxuraan wax nañ ci alxu euh, ci ci suratu baqara ne ñi gëñ ne duñ ànd ak seen soxna dañ leen di may 4 mois su 4 mois yu jeexee. ñu ne leen bismillah su fekkee delluwaatuñ leen léegi da ngeen koy fase affaire bi daal di jeex. Euh, maman dañu lay gërëm di la euh, sant bu baax a baax waaye di sant tamit euh, imam ñu ne daal loolu moo jiitu ci sëy waaye loolu tamit moom mooy mariage parce que nag bu ñu waxee sëy nag tamit bànneex da cee bokk tamit mhm. aussi. bànneex da cee bokk te comme li ma ko waxee bi passé bokk na li tax yàlla daganal bànneexu góor ak jigéen mhm. sëy loolu moo tax yàlla daganal ko mhm. pour que góor ak jigéen mën na yëg seen bopp mhm. te duñ ko def ci anam boo xam ne day doon mooy yàlla moo tax mu daganal sëy bu ko daganalee it euh, li may bañ rek mooy que ne euh, tey bu ñu demee ba ci ñenn ñi dañuy wax naan que loolu nekkul nekkul nekkul sak wala euh, xaawi seen sutura la ñu koy partager ak nit yi mais du doon loolu parce que xam tax du loolu

yi maanaam ñi nga xam ne dinañ nangu sëy ak seen ay soxna mais di sëy ak ñoom ba pare bu ñu paree wan leen ginnaaw mel ne comme si sax sëy ba ñu sëy yëguñu ci bànneex mhm. après day frustré ndaw si même ku góor ki aussi parce que si mm-hmm. ñaari parti yëpp lañ ko mën a waxee mm-hmm. ñu arrêté bu ñu sekkeeg nit dara ba pare mm-hmm. suñu paree rek ku nekk woon sa morom ginnaaw pour man communication bi am avant ngeen di sëy ba sëy mën ci juddoo après communication boobu moo war a continuer ba nga xamante ni bu ëllëgee ku nekk bu soxlaa moroomam du am ay arrière pensée ne kii de daf may utiliser rek kii de lii kese la may doyee parce que am na sëy yu man lii rek la may doyee mhm. wala waa ji ne ndaw si de lii kese la may doyee parce que mhm. lii bu ko lijjantee si man ba pare rek mhm. après man ak moom dootuma sentir sama diggante ak moom am na ci solo mais nekkul tamit li ëpp solo ci sëy maanaam sëy bi euh, li ngeen di sekk noonu am lu am solo la dañ koy d'accord mais ëppul solo communication bi dafa doon lu am solo mais comportement bi ak façon bi ngay nekk ak sa soxna ak façon bi muy nekkee ak yow ak ni ngeen di doxalantee respect bi am yëg-yëg bi parce que dafay am loo xamante ne ni sang bi sax moom moo ñu ko digal ne mhm. tey jii balaa ngay sëy ak nit ki doo tëb tëb rek ñew rek dem ci action bi mhm. mais dafa am étape par étape mhm. noo koy defee ba ngeen tollu fofu nonu su ngeen paré aussi dafa am nu ngeen koy accompagner ba ku nekk dem nelaw ci jamm ak salam donc sëy bi il faut que ñu nit ñu bari dal ñu toogaat ñu jàngaat naka lañuy ñuy ak nit alors justement ci jàngaat bobu parce que sank yaa ngi wax mais limay may doon bind may moy éducation religieuse bi dafa ci am solo parce que tout simplement et ce qui est dommage euh, suñu mbokk chrétien yi xam naa dinañu mm-hmm. dem ci ñoom. Mm-hmm. pour tamit ñu wax ñu lan lañ ci xalaat. Mm-hmm. mais ñoom seen côté. je pense que dañuy faral di dem di ci jàngu bi di waxtaan. ñu lay expliquer ngeen di waxtaan ba keroog sëy di ñëw. mais ñun ci suñu wàll. Euh, dañuy tal ay bopp yu rafet ak yu kenn xamul ba nga xam ne même bu ñuy mayee doo toog et même avant. duñ la wax li nekk ci biir sëy alors que lii éducation là rek éducation religieuse tout simplement. Mhm. waaw éducation religieuse ak tamit euh, surtout euh, éducation xaw nak nag mën naa wax culturelle wala aada wala usé coutume yoo xamante ne dañ la ko war a euh, teel a inculquer. Mhm. maanaam xam nga keroog bu mu indee thème bi maa ngi doon wax maanaam ci yenn communauté yi. fii mhm. Sénégal wala bu njëkk ba daan nañ gis avancé bi di am sax manam buñu yobbo may bu njëkk wala buñu ñu que né diw mii danañ ko may ké mhm. day am comme genre lu melni comme stage. Mhm. bo xamante ne nak mëna mëna utiliser mot bobu ou pas. Mhm. je le mets entre guillemets bo xamné ne bi dana ko défi donc fi mu wara a dem waaw am na maire boo xam ne moom rek mom mat na lox lañ koy oowee. je pense merci beaucoup lool rek mom moy liggéeyam. absolument xam nga loolu dafa baax. Euh, bu fekkonté ne mu ngi continuer di am ba tey. non xamna dina nekk dal vraiment alternative bo xamné ne. Euh, dana baax ci cas bu mel nii. mais yaakaar naa ne maman sànq am na lu mu doon développé lu am solo loo xam ne mu ngi wax naan du ko def tem ndax daf ko bëgg a sërëxal ci biir temu tay bi mais yaakaar naa ne bunt la bu ubbeeku. boo xamante ne jar nañu def si tem parce que àq dafa gaaw ya xam. ak tamit surtout buñ ne histoire de couple su ma juumul maman yaakaar naa ne histoire de couple war nañ cee mën a waxtaan lépp. ba ci développement psychomoteur ñaari way dencante yi muy ku góor ki muy ku jigéen ki. nii <laughs> ci biir euh, thématique bi mm-hmm. euh, jar ma sax nga seeti ku ci mel ni docteur Jean sexologue mu wax vraiment euh, mm-hmm. ñàkk téye boobu noonu ku góor ki di téye boppam mm-hmm. lan la mën a gàllankoor gàllankooree ku jigéen ki ci nekkinam moom en tant que être humain ci santé wam ci wér gu yaramam ak i tamit bu toogee ba benn moment boo xamante ne def ko ndax mënul am sax problème yoo xamante ne amaana alors séentuñu ko woon xaaruñu ko woon mu dem ba dégérer yaa ngi wax ci santé et tout quand mhm. nous ñëw ci nga xamante une une très grande frustration ba nga mhm. xamante ne bi ku jigéen ki mais mais voilà mais e, exactement mhm. mais mais oui euh, je pense que j'avais sorti le mot la semaine dernière le week-end passé moom mooy frustration euh, yow jigéen et tu te fais belle yaa ngi sañsee am joie de vivre c'est parce que yaa ngi bëgg séduire ki nga nekkal mhm. kooku nak su la xolulé en tant que jigéen en tant que une femme séduisante lolu dalay frustré euh, sans maman dafa am lu wax ci walu tëddin bi euh, wane wanente ginnaw man damay wax né rek xam nga am na ñaa xam yo xam ne dañoo tàmm bu ñuy rek dañuy wane ginnaw mhm. dañuy wané ginnaw ci éducation mais mais wane ginnaw bo forna ci wowo béy lolu day tax da ngeen di jaawaat wax day Madame, vous n'êtes jamais sur la même longueur d'onde da koy indi manam gat nga la bo xamné day indi xam nga olof rek wax xam mm-hmm. Mm-hmm. xam nga dañ lay wax ko day def tout temps loxom ci lu muy gal ak mais nañ ci biir sey mm-hmm. ngeen di légui euh, pour ci euh, sexualité ci man d'après sama xam-xam mais na ne que ni moyen de répression c'est-à-dire mm-hmm. que tey un homme un homme un marié un un un chef de famille Bon, ramener. jabaram yen na yenn jikko yu yi mu punir

indi na problème am ci sëyam mhm. muy joteeg jëkkëram mhm. bi dafa am méthode ko jox pour mhm. que balaa muy egg ci gaaw dañuy wax ne borom kër du gaaw di naan fase naa la donc ci loolu noonu dañ lay wax ne nga meree sa jabar dañ lay wax ne nga tere ko sa bopp dañ lay wax ne que ne nga wàññi kaf bi nga daan def ak reetaan bi ci kër geeg yooyu noonu yëpp nga téye sa bopp ba mu xam ne yow da ngaa am loo ko téyeel boo jógee ci loolu yëpp mënta nekk nga mbéj ko te mbéj bi aussi dafa am façon bu ñu la nee nga mbéj ko neewuñu la nga gaañ <laughs> right? <laughs> parce que nag la sa jigéen <laughs> waxuñu coup de poing ak ñu naan la nii laar la sant. mais loolu lépp aussi yàlla mi ngi ciy jàngale ne. waaw nit bu meree mën na mm. réagir noo xam ne da koy réccu. moo tax nag mu lay permettre ngay dem étape par étape. Mm-hmm. ba sa si. Mm-hmm. ba sa xel dellu si après nga ngeen juboo mm-hmm. parce que sëy dafa doon lu doy waax nit ki nga eggal foofu noonu dafa doon lu doy waax loo xam ne dañuy wax sax en général nit bu ci dugg na ci yam na ci bu mu ci sori. Ah, parce que on sait jamais. ñoom ñaar fa lañuy dem ba juboo fa. <laughs> ya ngi comprendre mm-hmm. donc tey jii ñoom. ñu nekk madame Guèye néna na moom nee na oh deug la par exemple nag lay waxé xam nga nag li si am ba am ko motax ñu né ah. yeen ñaar ñi nga xamné yalla yàlla may na leen ngeen di sëy parce que ñaata nit ñoo fi bëggante te yalla mayu leen ñu sëy. ñaata nit ñoo fi ànd te seen ànd mujjul fenn. donc tay bo ànd ak nit ba yalla dogal seen digënté sëy am ci. Mm. yeen yéné def li tax sëy bobu ne neex. te dafa a neex te li effectivement dafa war a neex parce que mm-hmm. yàlla daganal na mu neex. kon dafa war a neex. tout à fait léegi nag su demee bay naxari. Mm-hmm. dañu leen di jox ay solution yoo xam ne mën ngeen kaa def. Mm-hmm. mais man daal li may bañ te moom laa bañ daaw moom laay bañ ren. maanaam nga toog ci sëy bi. juste pour nit ñi. fekk na yow yaa ngi bëgg a dee. mais l'islam sax nee na 4 mois. 4 mois bu yeggee ci 4 mois. Mhm. am nga droit nga dem ñaan ñaan baat. parce que dafa xam li nga mën a muñ. Mhm. dëgg xam nga tam jigéen ñi tamit bokkuñu. am na mhm. ñoo xam ne mën nañu toog lu yàgg. yàlla mooy bind ay nitam te yemalewu leen. mais am na ñoo xamante ne mënuñu muñ lenn lii c'est pas parce que dañoo bon mais mënuñu ko. looloo tax na xëy na durée boobu mu ne ku ci toog. 4 mois nga sentir ne mënoo ko. nga dem ñu may la baat nga dem seeti ki nga xam ne. wa euh, loolu ko yàlla teg dina ko mën a matal ak yow fois mhm. du euh, may baat bi sax ñoom dañ ko dul nangu en tout cas mhm. euh, comme ni nga waxee daal li may tëjee mooy mhm. euh, sëy la dafa war a neex ci ñaari côté yëpp mais ñun tamit jigéen ñi dañuy éviter di chantage parce que nañu lii ñu chantage c'est c'est compliqué <laughs> loolu day yàq sax waaw sëy on sait jamais fi ngay sëyeeg fi doom di sosoo yàlla moo ko xam la ci moment bu ko neex mën na fa créer doom donc da ngay sàmm loolu parce que doom ji bu duddoo ci yenn anam yi mën na bon mën na bañ a tegu a

xam nga tey jii Sénégal ci cadre amuñu benn cadre bu ñuy jàngee réellement affaire u lekk ak affaire santé tu vas dans d'autres pays xale yi à partir de maternelle lañ leen di les cinq fruits et légumes et cetera euh, le bien-être ce matin maa ngi seetaan benn reportage au Canada où on apprend aux enfants la pleine conscience pleine conscience mooy nga xam sa bopp parce que pour nga mën a jëflante ak ñi bu normal il faut que yow nga xam yow yaay kan ñu yar leen ci ni ñi waxee la bienveillance nga janoog nit xam ne soxor amul njëriñ baax dafa am importance ban rôle nga am pour supporter sa papa sa yaay sa frère sa sœur ñun dañuy dañuy dañuy dañuy jël xalé bi rek bàyyi ko noonu jàngal ko un plus un jàngal ko mathématique jangal ko géographie mais amuñu processus su jàng processus su jàng nutrition daf ci bokk et alhamdoulilah, nous sommes à partir d'avril, Inch'Allah, Koduka Health and Beauty va commencer à intervenir dans les écoles euh, pour apprendre aux enfants à faire la différence entre les bons aliments, les mauvais aliments, de faire des vidéos, expliquer les processus sur lek, nan, digestion, parce que dafa beaucoup ci ci ci loo xamante nit maîtriser parce que lolu moy base santé lolu moy base bien-être

Ouais, le seul problème c'est que je mange pas de légumes et ça je l'ai traîné depuis toute petite donc mhm. loolu c'est j'ai une mauvaise habitude mhm. donc les enfants faut pas faire comme moi mhm. alors hier, euh, xam damay petit déjeuner Vous di ngay euh, oui mais plus café plus café et c'est pas bon donc je considère que doo ndekki yow da ngay mm. ndekki. waaw man damay ndekki looy ndekkee. ndekki complet des fois ma def euh, avec euh, suñu céréales euh, mm. locales des fois je fais un ah petit déjeuner conventionnel bi ñëpp xam quoi. merci merci mm. May yow da ngay ndekki ak looy ndekkee dooy ndekki xale buñ la dégg yow da ngay nekk. <laughs> man nag déedéet. yow dooy nekk yéen ñaar yow Fatma franchement yaa xam yow tamit da nga war a. joxe nag le bon franchement déjà lu may njëkk a ibbee c'est vraiment café mais très tôt le matin 6h 6h30 mhm. maximum. parce que le petit déjeuner il est obligatoire. man moom c'est mon c'est mon repas boo xam ne mënuma ko bañ a def. Mhm. c'est-à-dire que même su dee 14h dafa jot añ taxaw sax man damay nekk balaa añ balaa may añ. donc petit déjeuner ñu ne il faut que dès le bas âge ñu obliger les enfants parce que am na ay xale yoo xam ne da nga leen tegal petit déjeuner dinañ def c'est une caprice d'une duñ et c'est comme ça qu'ils prennent la mauvaise habitude comme Fatma avec euh, Maman Djé ba nous mhm. ndekki or c'est important mhm. parce que 25% de de l'apport journalier bi sort là mhm. petit déjeuner bon on petit déjeuner pour qu'un petit déjeuner soit réellement appelé un petit déjeuner c'est pas comme yow li ngay def café de faut un jus de fruits ou un fruit il des protéines protéines il y yaourt ak tout ce qui est laitage donc euh, mën na nekk fromage toujours pour les enfants pour tout le monde. d'accord mais à commencer dès le bas âge. ce que tu rek jeex ensuite d'abord à a des glucides glucides il y a koy am le beurre avec tartini, un petit confiture mhm. brioche pain etc mhm. et de l'eau et de l'eau voilà pour terminer. donc petit déjeuner bobo comme maïs li muy def lolou mo bax parce que ça doit être varié. pas chaque jour mburoog beurre café ak meew mburoog beurre café ak meew mburoog beurre café ak meew. Euh, non mais maman quand même tu tu fais ça pour les enfants. oui euh, mm-hmm. d'accord. di nga leen man bëgg naa mais man ay dibi laay bëgg di ndekkee. ay yu man loolu laa bëgg a dekkee am ay kotlet. tàngal ceebu kecca genre affaire ah bon man waaw ceeb ceeb nekkee ceeb lu neex la non franchement man dama ko daan def. ah bon gis nga ceeb boo tàngal le matin goût bi bokkul ak ceeb. ak cere. dafa neex de ak cere bi aussi non cere je comprends mais yeewu le matin quand mm. même. Mm. <laughs> côtelette laa lay wax nii de <laughs> côtelette suba teel. mi ngi yëgee en chéri reste en ligne ba ci kanam. léegi yaa xam ñu ne il est recommandé pour pour euh, habitude Bob, installé wu. il est recommandé les dimanches. ak les samedis nga def euh, un petit déjeuner en famille. comme nii nii def brunch. comme gars yi fi ñu toog dañu seetaan nii. voilà def un petit déjeuner en famille. nga xam ne da ngay def omelette da ngay def côtelette comme nu mu ko bëggee tu peux mettre un peu de dibi, euh, plein de trucs. Mhm. Donc les gens auront à choisir. Ça fait, ça fait de l'ambiance. Et il y a des familles qui ont ramené brunch midi. Donc du coup, parce que vous mangez tout ce que vous voulez. Mhm. Ce qu'il faut éviter systématiquement, c'est les jus, les cakes, ak euh, tout ce qui est industriel les chips et autres parce que xale on a très souvent l'habitude pour bëgg lu yomb nga dem jënd boutique c'est trop sucré et puis c'est industriel xamoo euh, madame validité bi et tout mhm, mhm. et tu lui donnes il y a aujourd'hui beaucoup de parents ils mettent dans le sac de leur petit le ramener ne de parce que bon demee jël les jus à la boutique je veux pas faire de mauvaise pub pour qui que ce soit mhm. mais man je préfère du lait au jus je préfère nga utal ko lait plutôt que les jus qui coûtent francs là, dougalol ko dem jël ay bonbons ay af il faut éviter et ma ñew si goûter pour jéxal sama première partie les goûter mm. donc il faut que le soir parents yi di am habitude toggal tuuti seen doom yi goûter mhm. dugal ko ci saagam mhm. wala aussi au menu mën nga def pain chocolat bu mhm. subaa nga def pain boo xam da nga si def fromage beneen yoon nga def si jambon il faut varier les goûters tout comme les petits déjeuners très bien voilà alors euh, laata ñuy dellu si ci yow parce que tu as une deuxième partie damay ñëw ak euh, Fatma alors Fatma euh, ce qu'il faut savoir et je veux dire ni ñuy jàngalee nit pour muy sëy mu toog ci sëy je pense que noonu la ñu war a mën a jàngalee nit pour que moom itamit mu xool naka la ñuy yoree xale parce que c'est aussi un métier qu'il faut apprendre mhm. c'est-à-dire élever des enfants De notre côté nutrition bi un solo mhm. lol » merci yaa xam surtout dans dama ci doli Sénégal. xam nga li li code wax tayal bi dina indi lu bare. da ngay jël ay lekk yu industriel dem ci boutique yi grande surface yi jënd jënd jënd. Mhm. te li ngay jënd non seulement ça va coûter excessivement cher. Mhm. mais du bar ci sa doom. tout à donc je pense qu'il faudrait déjà pouvoir défavoriser, favoriser di len jox di len tamal fruits ak légumes. Mhm. dès le bas c'est-à-dire goûter bu fekkoon yo da ngay jënd carton chips. goûter pour moi. bi. nga jënd ay fruits boo jëndee ay fruits wala nga des yaourt 200 francs 200 c'est pas cher. Mhm. mun nga woyal sax yaourt. vous avez mhm. def ci ay pot. Mhm. des ko ci avez des écoles, école day des jël donc je pense que déjà dès le bas âge dañuy jéem habitués à suñu dormir, yi ñu des fruits. ak légumes comme yenn dëkk yu développé ni ñu koy defee léegi c'est devenu obligatoire. publicité euh, lekku xale yépp da nga gis il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. C'est pas fait exprès, mais c'est mhm. obligatoire. Absolument. Alors maman, je euh, vous euh, euh, fruits et légumes mais déjà avons une habitude ba avons ñun légumes parce que nous aussi tamit fi amuñu habitude cuisson bu nous ñu ne temps bi la wara durer. Mhm. ñun dañuy togg rek pour togg fait quantité bi que ne qualité bi mhm. donc bu ñu ñëwaatee aussi tamit si xale yi seen lekk yi man dama doon gis sax koo xamante te loolu tamit bëgg naa ci interpeller parents yi pour ñu bàyyi ko xel dañuy defar jus locaux yi ñu ne moom moo gën ci xale bi mhm. mais des fois dañ koy def ci seen gourde yi mhm. balaa muy egg benn heure bi dafay fermenté te ñu bëri ñu nekk ci école yi duñ ciy bàyyi xel donc xale bi di ko naan ci journée bi yëpp mu mën kaa indil intoxication indil ko ay biir yuy na jus yooyu nga xalaat ne a conservation bi mom mo mhm. baaxul. absolument donc yàqu na ko mais maman man dama ne ndox bi. Mhm. nañu japp ci ndox mo gën rek ndox bi de l'eau de l'eau de l'eau pour les mhm. enfants. absolument de l'eau loolu moo naroon nekk sama dernière partie euh, may remercier aussi euh, Fatma parce qu'elle a excellemment bien développé elle a parfaitement raison te moom moo ma defal élément bi. may remercier walé aussi coach euh, sama turandoo bobu coach Kodou Kébé Kodou Ka ñu koy donc ya xam damay ñew légui ci lépp luy ndawal. Les luy nen mhm. ak lépp luy euh, jën mhm. dañ ne baax na nga koy lekk au moins une fois par jour am na mhm. sax ñoo xam ne dañuy def buñ ñu añee yàpp reeree jën wala bu ñu añee jën reere yàpp leneen li mooy les char tout ce qui est charcuterie ak euh, friture il faut éviter ko c'est des aliments yoo xam ne euh, loo siy lekk lu mu gën a néew noonu moo gën tout ce qui est meew ak les produits dérivés mooy les produits lait laitier, j'y arrive. Mhm. Donc, 3 à 4 fois par jour. D'accord. Non, par contre, yaourt, je n'ai Par contre, je n'ai pas fait de lait, je n'ai pas Mais oui, il y en a qui ne supportent pas. Mais tout ce qui est produit dérivé, je n'ai pas Donc, le lait, je 3 à 4 fois par jour. Mhm. Venons-en donc à présent aux fruits et légumes. Comme, euh, comme Fatma dit, c'est au moins 5 euh, fruits et légumes par jour alors nous avons amuñu habitude fruit fruits. Mhm. Mhm. Euh, fruits fruit fruits que ce soit nos fruits sauvages ou les fruits euh, yoo xam les fruits, fruit mhm. il faut en manger il ne faut surtout pas faire comme man parce que si vous am les vitamines les minéraux yi nga ça, c'est le yaram le il faut euh, aussi pour que nous yi am habitude fruits, yaa xam il faut instaurer li nga le panier de fruits dans les maisons. Rare sont les maisons yi nga xamné bo fa démé gis fa mhm. panier de fruits am mhm. maison buñ ñu demoon euh, samedi dernier fekk fa panier fruits ça m'avait vraiment euh, fait plaisir donc il faut parce que panier fruits bi soo ko rombee da ngay jël dem. Mhm. donc ça il faut le faire. les féculents et les produits euh, céréaliers <laughs> pourtant les fruits ne sont pas si chers. Ah, donc à chaque repas da nga wara am li nga xamné moy des féculents féculents euh mburu mi brioche yeeg yooyu. les produits sucrés il faut éviter. suukar moom nga diabète nga baña diabète nga prédisposition une prédisposition ou non mhm. il faut éviter tout ce qui est sucre amul benn apport euh, nutritionnel bu tax ñuy wax mhm. Mhm. ensuite euh, da ngay am risque carie dentaire les boissons la meilleure des boissons moom mooy l'eau bi nga waxone sank donc c'est euh, un yi au lieu ngeen di len defal ay jus yu fermenté wala dara defal len si mew ak ndox sinon ngeen def ci ndox kessé et les trois dernières choses je ma bëgg a quand on mange pour que mën digérer bu il faut ngay am activité physique physique il faut mm-hmm. ngay def sport ensuite il faut bien mâcher Bagn di warax rek nga xam mm-hmm. da ngay wone na wone na na sax sentir goût ñam bi mm-hmm. donc il faut apprendre aux enfants à mâcher manam à yey et puis enfin il faut que xalé bi su bañee nga forcer ko xalé du taamu rawatina wàllu lekk loolu mooy indi su màggee bëgguma su kanja bëgguma li bëgguma la amul choix y a aucun choix pour un enfant li nga am li lay lek su bëggulee nga jox ko lool ba mu bëgg ko euh, <laughs> la. alors euh, man je dirais plutôt naxante ak moom parce que je pense que à un moment donné xale da ngay naxante ak moom et puis xool naka ngay. Ah, ah, préparer c'est l'expérience qui parle. Euh, non non et puis nga xool par exemple. si tu veux que l'expérience si tu veux que l'enfant l'enfant mange quelque chose. Mm-hmm. da ngay naxante ak moom def ko ci peut-être pomme bi nga jël ko am na ko daggatee peut-être oh, banane bi. oui je veux bien mais en fait di di foog mais le le le le forcer. Mm-hmm. Euh, moi oui, mais quand on te dit forcer c'est pas que da ngay le gourdin boo ko lekkul ma rey non. Mm-hmm. mais c'est-à-dire que dafa am benn discipline boo xam ne ngay imposer sa doom ba. Mm-hmm. pour fu mu dem luñ ko de dina ko très bien sinon ça pose réellement problème. alors euh, dañu lay gërëm di la santé bu baax a parce que mbokk yi dañu ne la santé se trouve bien sûr dans l'assiette Beaucoup de defee ñu jox de bonnes habitudes à nos enfants. Mm-hmm. parce que comme nous mu ko waxee defe naa ne li nga xamante ne bi moom nga nekkal xale moom ngay màggaale un am impact bu grave des fois si sa santé ne pas manger des

Il ko que les lo qui ont mën nañ ko laal daal lo la forme ak forme bi ko dessiné ci biir machine bi mom lay reprendre et c'est le cas de d'une imprimante 3D que nous avons ici. Ce sont des machines en fait euh, qui peuvent être utilisées euh, dans le milieu industriel et qui ont la capacité en fait de reprendre des modèles, par exemple pour le cas d'une imprimante, des modèles conçus par un logiciel de conception assistée par ordinateur, puis le transformer en un objet qui est réel. man nak euh, li nga chanson bi nga def ci souf sax dafa ma gëna neex. mais mhm. ko xeebul sa ken kenn lo noos. kon mhm. nak ak 5000 francs nos nga am ay millions. noos def entre def nu mu ci imprimante. Mhm. waaye nga am 5000 francs tamit def euh, imprimante. il suffit juste de bien réfléchir en tout cas je suis contente parce que suñu que euh, ci la technologie bi euh, mhm. sénégalais jeunes di ci label 221 mais welcome again Wow, again again yes <laughs> and more again alors euh, comme nous l'avons vu, waxee rek euh, gis nga label 221 Nous dañu dugg ci dëkk bi rek di c'est des innovations vraiment Nous ay vu euh, ñu koy découverte innovante mhm. comme pour utiliser le jargon Nous avons vu ci émission bi ni ngeen ko gisee nag Mohamed Demba Diop c'est un jeune étudiant mhm. il a 23 ans Il est à université de Charente Diop Dakar mhm. di suivre 5 maa ngi wax formation en mécanique et conception industrielle moom nag boo gisee machine bi ya xam bo imprimante 3D ak bagage yu bëri yépp mané la 5000 francs donc le utiliser da lay jaxal da nga naan 5000 francs nga am ci li yépp li na di mhm. ah, alors euh, li ci am en réalité moy que né 5000 francs bi c'était juste pour acheter la puce électronique bi nga xam ne ah. mooy tax ñu mëna def impression bi leneen li ci top matériel la récupération la donc ce qu'on appelle des déchets électroniques mhm. par exemple bo démé ci une entreprise euh, ordinateur yi nga xam ne utiliser tuñ ko mhm. euh, unité centrale yi écran yi ak yeneen déchets yoo xam ne dañ koy sànni ba ci fil boobu bu vert bi ngeen gis bi nga xam ne moom la ñu euh, rouler mhm. lépp da ko récupérer daal di créer li nga xamante ne nag mooy machine 3D bi ngeen gis machine bi nak euh, ya xam nekk na machine boo xam ne dafay imprimer lépp maanaam bu ñu ne 3D par exemple soo bëggee benn euh, objet boo xamante ne dafa war a am relief yow ni nga ko bëggee mu génn mhm. Euh, moom mën na la ko imprimer mu génnee noonu. ci ci ci ci dëgëraay bi ci épaisseur bi ak ci couleur bi nga xamante ne moom nga ko bëgg. voilà donc tey nag li mooy euh, coup de cœur bi nga xam ne indi nañ ko ah ci ben biir label 221. demba ba nag ñu daje ak moom fële ca place du souvenir ci exposition boo xam ne ñu ko fa doon def ñu invité ko woon pour mu ñëw wone machine bi nga xam ne def na ko. très bien mhm. euh, alors maman damay ñëw ci yow parce que maman mhm. dañu naan daal sénégalais yi ku leen pousse dinañ dem. Mhm. parce que surtout jeunes yi nga xamante ne bi ñu ngi ci école yu mag yi di jàng. jàng waaye tamit ñi ngi di gëstu te mm. lii lépp dafa war a jëmale suñu réew kanam mm-hmm. parce que nag côté scientifique bi mm-hmm. dafa am solo ci développement réew mm-hmm. intelligence bi mi ngi ci ñoom créativité bi aussi mi ngi ci ñoom aussi tam am nañu jom xam nga loolu moo gën a am solo am volonté am jom code mi ngi koy wax léegi des fois manque de moyen moo leen di jàpp mais kenn ku nekk si ñoom yaa ngi xool la ngay mën a def toogoo di xaax ci dara ci kenn donc dañuy wax que ne yu baax la nañu gën a gis day dal xel parce que mm-hmm. dëkk xale yi ñoo ko yore tout à fait donc bu ñu gisee xale yi di góorgóorlu dañuy mm-hmm. rassuré alors may nag may man am naa benn problème bu ndaw mm-hmm. mooy que man dama doon bëgg ñii comme ñi ngi koy fesal nit ñi di leen xam waaye ku ci mën a jàpp nga jàpp ci parce que comme ñun dañuy jéggaani fee ñu jël yëpp di ñu indi rek ñun tam ñu commencé tamit di jël di yóbbu yaa xam li nga wax nag loolu la ñëpp di xalaat parce que ku seetaan élément bi rek reportage bi loolu mooy njëkk dem sa xel ne Demba Diop mii autorités yi lan la ñu xaar ci moom. Mhm. Demba Diop mi bonne volonté yi lan la ñu xaar ci ñoom. Mhm. ak euh, le secteur privé ci boppam. Euh, lan la ñu xaar pour ànd ak moom ci projet bi nga xamante ne taxawal na ko. Mhm. parce que yaa xam lu ñu ci mënti wax yëpp lii dafa nekk machine boo xamante ne c'est innovant. te bu ñu waxee innovant mooy ne dafa créer loo xam ne ça règle une problème parce que d'habitude en entrepreneuriat dañuy wax ne yow boo créer dara loo xamante ne ça sort de l'ordinaire tout le temps day nekk loo xam ne day indi réponse ci benn problématique. et là il apporte une réponse à la problématique liées aux déchets électroniques. Absolument. voilà donc je pense que nous avons déjà mhm. war na tax nous mhm. ñu yëngu environnement mhm. ci développement durable Nous, avons ànd ak moom ci projet Absolument. absolument un volet j'ai euh, naa impression bi gis nañ ci ay buste ñu là ça m'a fait penser à la haute couture à la ah. mode au design au styliste je me disais que buste euh, voilà là, là. Waouh man ba ma koy xool maa ngi naan lii par exemple mën na am lien ak ñi nga xam ne dañu liggéey ci wàllu couture ak stylisme donc loolu yëpp ay opportunité la yoo xamante ne vraiment mm. euh, dañu profité ci plateau bi pour lancer un appel mm-hmm. euh, ñu ñu jëm ko euh, approché mm-hmm. xool li nga xam ne indi na ko ñu jàppale ko mu jëm kanam très bien alors Kodou aussi Fatma mm-hmm. gis ngeen vraiment label 221 parce que dañu ne suñu dëkk bi lépp a ngi fi ci secteur yëpp moo tax chaque fois dañu koy fësal pour wax ne nous dëkk bi li fi am mën nañ ko jëriñoo bu baax mhm. en tout cas bravo à mhm. ah, May mhm. et à la RTS2 bi am initiative label 221 chaque jour secteur bu secteur bu ne oui oui euh, je pense que ni nga ko waxee moom euh, machallah li des rek accompagnement ak moyen parce que euh, mën na ko toujours faire man naka def toujours de sorte à ce que mu gën ko mun a multiplier. Mhm. parce que souvent on manque de moyens mooy tax. man mhm. damay kontaan yaa xam parce que jamono bii xale yi machallah xarañtef dañuy gi ci mm-hmm. walu technologie. Mm-hmm. man daf ma yéem mm-hmm. sincèrement. la dernière fois président de la république jot na recevoir ay ndaw. yu ci walu start-up yeeg. xale yi développer ay applications mais franchement machallah euh ki bañi fi passion bañi fi. xarañtef gañi fi. moyens yi rek mom mo manqué. alors Fatma dañuy dañuy dañuy encourager ñun. et dire à ces jeunes là que Maïmouna elle est là. RTS 2 en face Sorano. boo leen amee la wara woné wane jox leen ñu ñu woné ko. parce que lolu tamit suñu mission yi ci la bokk et man dama am espoir ci jeunesse sénégalaise Fatma merci Yacham encore plus proche de vous tout à fait man daal li ma ci wax ci maanaam daal wax wax ngeen lépp mhm. man daal li ma wax à Maïmouna Sy mi nga xam ne ah day dem di di di indi lu intéressant di ko indi nit mhm. ko imiter mhm. mais jamais égaler ah non mais <laughs> na dem rek nañ ko imiter mais non sérieusement parce que à chaque fois dama koy wax je veux dire ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble mais je veux dire secteur yu lay et elle ne s'arrête pas à Dakar va en dehors de Dakar je veux dire l'objectif bi nga wax encore plus proche de vous ñun suñu population yi la dem di jege loolu nak, mooy RTS Moi, mhm. congratulations. Mhm. thank you looy ah. tëjee waaw <laughs> alors yaa xam vraiment comme ni koy euh, Fatma nous ñun suñu liggéey la ñuy def rek mhm. RTS dañu ne encore plus proche de vous et puis euh, le groupe RTS en tant que tel ci boppam il est là pour le public te bu ñu waxee public mooy lan mooy population bi ci boppam donc fi may jeexalee rek euh, mooy ne demba mi wax c'est un jeune entrepreneur te foofu dama ci bëgg taxaw bu baax parce que bañ ko defalee ci ay interview yu bëri yoo xam jot nañ ko def parce que les chaînes de télévision aussi ont fait beaucoup de reportages sur lui ay chaînes africaines yeeg euh, fii ci Sénégal ak même euh, les grandes chaînes internationales am na ñoo xamante ne jot nañ def interview ak mhm. parce que li mu def daf leen jaaxal daf leen daf ah leen séduire euh, am na sax benn événement boo xam ne waa Institut organiser nañ ko invité ko mu pour partager expérience avec mhm. ak ay jeunes yi nga xamante ne dañuy faral di

encore une fois que mm-hmm. groupe RTS moi mm-hmm. euh, euh, fa am nous sas mm-hmm. dañu informer divertir len éduquer def que euh, ci lañuy may ñogi lay gërëm di la sant bu baax qui ñu émission tam-tam du week-end ci suñu xarit Fatma alors Fatma né na c'est vrai que ñu wax ñu ne les mais les bi dal duñu def rek dul dem xol parce que ñu ah, c'est quoi les c'est ça laisse tey maa leen perruque euh, wavy semi ondulée cheveux naturels donc avec frontal frontale frontal closure c'est-à-dire que si canam rek donc ça fait vraiment effet naturel hein, parce que sous pareil, sous comment mannequin bi solee des vraiment si moom le bok, alors que c'est une perruque. Toi tu quoi tu fais que hala customisation da nga frontal closure frontal closure bi étape da ngay tenture pour que boko ko mo nirok tout dépend de nit ki de ñuul dafa de dafa marron donc man damay adapté couleur peau bi ak euh, teinture. bi may

parce que au début dama doon tâtonner en fait dama doon ay frontal di customiser mais je me basais sur tutoriel YouTube parce que YouTube on te montre étape par étape ni ñu koy defee mais coiffeuse yi foofu duñ la woon donc dina am détail yoo xam tu es obligé dem boo vraiment def lu baax da ngay dem ko parce que coiffure faire évoluer bu baax et ça va très vite avec technologie bi donc fi mon dao il y a un an plus tard dafa gën a développer donc il faut vraiment xam noo koy defee maîtriser ko donc customisation bi mu ngi nii pare na dafa naturel day mel ni karawam la donc après dañ koy tegal mannequin bi coiffé ko pour ngeen xool effet final bi nu muy mel. ñu bëri ñemewuñ couleur nag Sénégal ñemewuñ dañuy ragal mais je trouve que parfois il faut oser. nit yu am peau yu noir yi blond ñoom la gën a jàpp que ñu xees parce que mon na vulgaire tuuti mais boo touti, tuuti wala nga teint marron c'est vraiment c'est joli donc j'ai dû damay le vert gris couleur bu ça sama xel ma def ko. bi moom karaw 100 pour cent c'est-à-dire ki mon karaw bi poivre sel la et puis après man ma def ci frontal closure bi teinture frontale pour moi en niveau ak couleur bi su c'est rek c'est bi dafa war a sobre parce que mënoo sa bopp fausse hier et fausse non des vulgaires donc du noir quand bon ami couleur vous clair si c'est bon on est des maquillages vous sobre des highlights après nous les vous l'endem à ramener couleur vous les nids et demain quand ils sont l'allemand qui arrive Thank loco. alors euh, Fatma, Fatma nous les remercier bu parce que quand on parle souvent de l'aise mais euh, gis nga nekk na perruque bu nga xamante ne bii euh, après bu ñu ko defaree ni ñu ko war a defaree. Mhm. très naturel. day mel ni en fait. dëgg la ya xam day mel ni karaw juste rappeler que les léegi mu ngi doog a xew. Mhm. bu njëkk bi nit ñi tissage lañ doon def. Mhm. oui benn moment ñuy def collage. ñu ñëwaat tuuti ñu commencé closure. donc léegi ñu ñëw ba yegg si frontal bi nga xam ne c' la dernière méthode mooy soit nga jël frontal soit nga jël full lace. mooy lace bi. donc il faut juste rappeler que lace base bi dentelle lay Mm. donc lees la ñuy wax ni que mooy perruque bi nga xam c'est indétectable mm-hmm. te aussi il faut dire que en en, milieu médical ni am yenn feebar yi day am ay alopécie ak chute de cheveux yi da nga leen di mm-hmm. d'ailleurs su ma juumul sax fa la ñëkk a fa la ñu ñëkk a commencé mm-hmm. utiliser les si si ay malades donc euh, am na ñetti façon lees y a le full lees bi bi nga xam ne day jël carrément su forme boobu yëpp am lees euh, wig bi bi nga xam ni base bi dentelle lay nekk. d'accord te mais danga koy coller si kanam. si ginnaaw day nekk perruque traditionnelle. day am crochet donc am na lees wig bi nga xamante ni itam soxlawul col. Mhm. moo xew léegi. léegi lees yi soxla buñ ko defaree buñ ko customiser ba mu mel ni mu war a mel. Mhm. waratuñ ko coller. tout à fait ni même baby hair lañ ko war a génne. peut-être mhm. ak gel bi. te baby hair itam xewi xewatul. donc lees falaise frontale moo xew bi nga xamanteni ni dootuñu ko collecte. d'accord fofu lañu ñu toll léegi. Mhm. donc euh, voilà c'est c'est loolu l'a laa bëggoon <laughs> loolu l'a loolu laa indi woon tey. très bien euh, alors euh, Fatma damay si yow lay ñëw directement parce que mhm. les téléspectateurs ils voient ku léttu alors que Fatma lees la def si boppam bi ñu létt lees bi je veux dire création yi ci biir lees yi dafa bëri nga tontu ma fofu ba pare ma ñëwaat ci beneen question <laughs> merci merci Yakham donc li les frontal la mhm. d'ailleurs même du full lees amna ñu koy def ci full lees amna ñu koy def ci frontal donc les frontal bi lañu jël mhm. à la base perruque bu gatt la du mèche bu gudd mo gëna gatt li nga def ni moom la ñuy jël tek ko ci ci tête. d'accord lett ko comme kuy lett karaw. defal sa sa loxo bi nii comme kuy lett karaw donc yokk def ci ay mèche d'accord

ak kii bi ñu teindre euh, kii bi. Mhm. Euh, lan lan nga wax nu mu tudd. li naroon ah, nekk cuir chevelu bi cuir chevelu mm. oui. dentelu lees bi dañuy jël teinte ko ak sa couleur karaw tout à fait d'ailleurs man loolu lañ ma def les mo fi tak uh-huh. dañ ko teinte ak mu adapté ko ak sama couleur de exactement peau. ce qui fait un effet naturel c'est-à-dire de loin do uh-huh. xam ni la tout à fait yaa xam des fois da ngay gis par exemple à l'époque dans les années 95 97 quinze quatre quatre-vingt-dix-sept way mm-hmm. yaa yu si woon ay brandy ay yooyu oui mais brandy temps yooyu uh-huh. lees la doon def Whitney Houston da daan def lees tout à fait te ken dan ko woon xam dañuy naan américain yi dañu mën exactement mais les la absolument on est un peu en. Uh-huh. en retard mais bon ñu ngi ñëwaat. waaw mais ñu ngi ñëwaat ah, xam nga lu tax ñu ngi parce que euh, tey li ma neex ci ci ci ci ni ñuy ñëwaatee nii. Mm-hmm. li ma neex ñuy ñëwaatee nii. Mm-hmm. parce que dañ ko africaniser. Mm-hmm. la preuve dañoo jël lees bi xoolal Fatma. ma ñu mel ni ku lettu rek jàpp ñaamuram. Euh, créativité bi yemul ci suñu entrepreneur yi rek. soo gisee coiffeuse yi léegi. nga xam ne dañu fonk seen liggéey. autant da nga daan gis nit bu maquillé wu boo xam ne. boo gisee nit bi da naan est kii diw bi ma xam la. mais léegi dafa évoluer tellement que ne nit bi day defaru parce que principe bu defaru moy gëna rafet mhm. donc bo defaroo gëna ñaaw amatul sens té légui lolu la da ngay mhm. defaru mhm. gëna rafet yokku sa taax parce que lolu mo taxone aussi tamit ñuy defaru aussi tam nit ñi di baye xel <laughs> ku nekk di def lu ko japp ah, parce que lolu dafa am importance deel xol lu la japp bañ xol lu Fatma def wala lu mama def nga xol yow sa kanam ban mode de kanam nga am nga def lu adapté ak lolu non très bien alors euh, lesi nak euh, on va terminer lesi euh, mën nga ko baye brushing ko mën nga ko tak mën nga ko coiffer c'est-à-dire lu neex lu la neex nga koy nga koy defee parce que foo ko yóbbu rek fay dem. Mhm. Euh, Fatma ñu ngi lay remercier bu baax a baax dafa am loo ci yok Fatma. ma ngi len di fay di len souhaiter un bon weekend end <laughs> won woon nañ la ba pare. <laughs> merci beaucoup. Ah, man yaa xaw mo ne won ne li mu teg ci boppam bi du ay lettre man du ay létt la waaw moo tax li bi door yi mu si def tamit plus mais mais <laughs> ya xam ko sénégaliser ñun ñun suñu temps yi amul won donc man waxuñ ñu suñu temps ñun bañuy tek greffage yi mom amul won woon yow mère nga motax mais mais ya xam man ah, ah, bu wax lolu non ñun au fait

c'était pas aussi sophistiqué. Même si on était accro. C'est l'effet de la technologie. Moi, j'achetais tout ce qui était à la mode et tout, mais c'était pas aussi... Parce que euh, américaine comme elle l'a si bien dit, mhm. ñu ci bëri ay euh, mais yaa xam loolu mondialisation bi ak internet bi moo ko. Mhm. dafa dem YouTube dit top ay tuto di top ay tuto di top ay tuto. elle se rendait compte qu'elle n'avait pas le même résultat. m'ou mhm. rechercher rechercher rechercher ba xam ñan ñooy def formation à Londres mu dem ba Londres. daf nous formé ko man mm. preuve parce que ma vidéo formation formatrice anglaise et c'est très important justement domaine nous en tout cas euh, merci beaucoup euh, oui rapidement oui mm-hmm. <laughs> oui désolé je suis désolée je suis désolée, ouais, sincèrement. Quand tu me dis rapidement, la femme est perturbée. non, j'allais pas. Ouais, mais il faut que je te dise rapidement parce que ça fait deux minutes ou trois qu'on me demande bon, d'arrêter. C'est pas grave, désolée, c'est pas grave. C'est pas le choix. Je si je devais faire, mais pour me remercier. Non, non. Non, pardon, désolée, pardon. Sincèrement mais il xam a yëpp mondialisation bi ak internet bi moko ko. indi mais yaa xam li mhm. dafa dem YouTube di top ay tuto di top ay tuto di top ay elle se rendait compte qu'elle n'avait pas le même résultat. Mhm. mu rechercher rechercher rechercher ba xam ñan ñoy def formation bi à Londres mu dem ba Londres. Mhm. def fay. Nous formé ko man mm. loolu am ci preuve parce que daf ma dan yoni vidéo formation ak formatrice am anglaise et c'est très important justement ci domaine bu nek nous wara wu en tout cas Fatma ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax en tout cas ce laisse euh, à la sénégalaise bi machallah rafetna Fatma kan ngay remercier tay wa yaa merci beaucoup. Uh-huh. man tam ngi lay remercier bu baax uh-huh. yaa merci uh-huh. encore. donc maa ngi remercier Julie Tiam donc mi 77 654 54. de kon moom moo jaar fii. ci perruque bi. très bien euh, En plaisir de te retrouver incha la semaine prochaine. merci beaucoup. di gërëm di sant bu baax a baax madame Guèye Maymouna Sy di kontaan saa su ne parce que li ñuy indil macha allah daal waa Sénégal xarañ nañ. nag mm. nañu continuer ci yoon boobu parce que danoo bëgg dëkk bi développer. Mm-hmm. merci beaucoup madame Guèye. merci à toi Yakham mm-hmm. vraiment amoon nañu mbégte partager plateau bi ak yéen ak ñi ma féggool yëpp. Mm-hmm. Euh, di remercier téléspectateurs yëpp rawatina nag jigéen ñi comme mois de mars lañ nekk des na tuuti. dañ leen di sargalaat rek saa su ne mais que li ma fàtte wax ma may jeexal que né euh, ñu ngi doon wax ci euh, avancée technologie ak yoyu mhm. vraiment ak numérique bi opportunité yi nga xamanté né amna ci mhm. la preuve gis nañ né gouvernement Sénégal taxawal na li nga xamné moy conseil national du numérique mhm. euh, suñu con confrère ak suñu rak Basile Niane sax d'ailleurs membre la si ñu féliciter au passage vraiment diko encourager bu baax ñi ngi lay gërëm di la santé de féliciter encore une fois suñu xarit Basile di remercier madame Cissé Kodou Mohamed Kodou kan ngay remercier tay waaw ya xam man damay remercier euh, madame Senghor Denise euh, mhm. moom mooy borom euh, splendeur d'Afrique mon moo habillé label Afrique merci mhm. donc mon style africain, à mhm. donc il y a Sacré-Cœur pyrotechnique juste derrière la scène, scène' Sacré-Cœur Je koy remercier et est joignable au 77 546 53 53 ou le 76 732 41 58 sinon rek les wax parents ñu di absolument c'est important ñu que la santé se trouve retrouve tout simplement dans l'assiette alors la belle maman Dieye ah, maman de xamna ni nga xamantene ne ngi doon def lolu non nan ko baye mais jigéen ñi nga xamantene mi tamit ngi len koy def am nañu solution parce que imam bi limu wax leer parce que après quatre mois quand même c'est exagéré et voilà am na xam ngi koy dund depuis plusieurs années mais en tout cas toujours solution day am euh, histoire de couple machallah allah euh, foo jaar rek ñu laaj la waaye yéen maman Dieye mom dama wax kérok doy na war de <laughs> maman ñi ngi lay sant di la gërëm bu baaxa baax <laughs> euh, di mais di remercier aussi <laughs> Fat Sané Esprit Chic <laughs> man de maa ngi lay remercier man yaa xaw <laughs> maa ngi lay remercier ak aussi ñu remercier borom esprit chic ñu mën ka jot ci 77 653 79 26 mi ngi fële ca jëppal bu ma ci aussi mbokku téléspectateurs yi nga ne ñi ngi ñëw di problème pour que ñu def ko que rek yi euh, dañ mais tamit ku sa tour rek sa nit wax après gisul nga ko ngay mm-hmm. nekk di mm-hmm. la yow sama problème bi la ko ba mm-hmm. fekk na dafa

dañuy contane euh, nak euh, mbokk yi di fego ak euh, deuxième groupe bi alors di ci dalal sunu monsieur Michael Souma ma ngi lay nuyu di la dalal jam. sa am bu baax parce que nak ak yow comme toujours ay découverte la am fi ci émission tam-tam du week-end xam nuyu na la nuyu nak ñima bokal plateau bi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi mm-hmm. Euh, c'est vrai que tay nak euh, comme ni nga ko waxee rek. Mhm. Euh, suñu invité tay mu ngi tudd Chadia mhm. Aïssatou Dia. Mhm. moom nak elle est artiste chanteuse musicienne. je pense que.

maa ngi lay fay yaa xam damay kontaan toujours euh, samedi jot fa ñu bokk <laughs> plateau bi man gis naa sa bleu ciel rafet na trop. <laughs> macha allah <laughs> waaw gis naa loolu c'est très joli. maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi safo RTS 2 naan leen rek ñu dem ba ci kanam ñu xool bon plan bi ma leen indi. jërëjëf Khadidi di la grande salusienne waaye sànq ñu ngi wax la santé se trouve dans l'assiette dëgg la euh, bu ko defee dañuy am mbégte mbokk yi di feggoo ak suñu xarit euh, Rougui waaye Rougui tey lam ma lam ma musoorul lam ma parce que gis nga ko dëgg dafay dafay def euh, noir blanc def rouge. Euh, en tout cas maa ngi lay nuyu di la dalal jamm wax dëgg yàlla rugi di contane ci sa teewaay parce que nak ci walu santé saa su ne yaa ngi gindi ak euh, spécialiste yi nga xamante ne bi yaa ngi ak ñom effectivement yaa xam ah. maa ngi lay fay bu baax a ah. baax ne la dañuy topp ci sa ginnaaw rek nag ñii <laughs> moom ci yow rek lañ koy imité voilà <laughs> di nuyu euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo taamulaa la RTS de di leen sargal bu baax a baax di nuyu ñi ma bokkal plateau yëpp mhm. di leen wax ne nag conseil santé tey ñëwati na ci beneen thème boo xamante ne suñu spécialistes yi ñoo ñu ci gunge mhm. ndax ñu mën ko jox askan bi ñu gis ci njariñ bu baax a baax ñoo ngi lay gërëm di la sant waaye di am mbégte nag wax dëgg yàlla di accueillir parce que la dernière fois daf ma daf ma xawoon wax ne ni ma ko waxee woon dafa sedd grande Mamitou. Est-ce que, est-ce que non. Ah! c'est la star de RTS2 euh, Mamitou na elle def ça va yaa xam tey tane naa. ngi ça va yaa ngi def ay effort. yaa ngi ñëw nyo ngi ñëw maa ngi ñëw ah waaw ngi oh, merci ya yaa mangi le ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax na moon naa la. toute la semaine gisuma la dégg ma la maa ngi say statut quand même. ah statut yaa xam ba si daan statut yow nga am connexion ay 20 la lay may par heure. Euh, di nuyu aussi euh, ñu ñuy année pour sur la RTS 2. Uh-huh. Euh, di leen wax bismillah. Mm-hmm. ci affairage ci kanam ñu ñu kafforee décompresser déstresser tuuti et espérer passer un très très bon week-end

maa yëngu ci produit yoo xam ne bio la à base de karité karité naturelle boo xam ne amul benn effet secondaire amul dara luy hydroquinone aussi quarité bene la amul odeur ku nekk mun na ko diwoo ñi nga xam ne dañu xeesal ba bàyyi xeesal mun nañ ko utiliser faa yi nekk enceinte mun nañ ko utiliser les bébés même bébé buy soog a juddu tey sax mun na ko utiliser am na pour teint noir am na pour teint clair. juste teint noir bi ak teint clair du produit hydroquinone mooy différence bi dafa nek ben huile bio bo xamné ne joxé ku ñuul mën na ko xaw éclaircir ben huile rek moy différence mais tout est bio amul dara dara luy yàq yaram day dindi picc dindi tout ce qui est impureté ci yaram bi dindi tache noire wañi visibilité vergeture yi li muy def ci yaram dafa bari dalay rajeunir en plus xam nga karité ñun ñep xam nañ na dafa bax voilà légui nak dañu bëgg wañi xéssal bi suñu yaram yaxuna jigen jigéen ñi bëgg nañu lèr bëgg nañu rafet mais dañu amul lu baax lu ñu mën a diwoo produit yu bon yëpp yaxna suñu yaram yi motax nak pourquoi pas man ma xalat am benn idée bo xamné pour dimbalé sama mbokk jigen yi xamna na ne ñëp bëgg nañu rafet té lu baax rek lañu bëgg té bi amul benn odeur c'est bien traité liggéey bu baax lañu def ci ginnaw pour que nga mën ko jëfëndiko mën nga ko diwoo le matin mën nga ko diwoo le soir amul odeur amul dara lu la si déranger quoi odeur bi dafa neex boo ko diwoo di nga gis sa yaram day lisse da ngay gis ne day nooy comme coton ku ko def daal kenn du la ko nettali. li ci gën a neex sax mooy alaaj yi dañuy utiliser pour teint noir bi ku ci am problème mu peau am problème boo xam ne comme si li ñuy wax ndoxu city boo ko diwoo lépp lay réparer amul lu mu dul def ci yaram lu baax. dama koy jënd brut ba paré jël samay affaire génne ci huile yi defara sama bop huile yi en même temps duma dem ci boutique yi rek wala dans les grandes surfaces jënd huile ñëw def ci huile ci ciy man maa koy defaral sama bop te je l'ai testé pendant 2 ans diko utiliser xam nga kuma xol xamné sama yaram yàqawul prix bi cherul yomb na ñëpp mën nañ ci am accès sama dernier mo xana moy kontaan di leen remercier yéen wa RTS 2 ak sama cliente yi di remercier nak surtout sama jëkkër monsieur Dieng ndax suma ma amee fit def lii moom la moo nekk sama ginnaaw vraiment merci à monsieur Dieng. xam naa ne di ngeen d'accord parce que à chaque fois Khady euh, jigéen buñ ko interviewé day wax maa ngi remercier sama jëkkër góor ñi tamit da tamit bu leen bu leen waxee dara ngeen maa ngi remercier sama jabar mais ñun dañuy wax toujours on remercie notre mari mais le mari dit jamais je remercie ma femme alors qu'elle fait beaucoup de choses anyway euh, Khady je suis content parce que ce que nous avons aussi bon plan, dafay baax gis nga nit aussi yaramam dafa am solo te nag dara gënul li nga xamante ne bi ñoo ko moom tu sais on en parle souvent hein, et tout le temps maintenant retour aux sources karité dara gënu ko xadi effectivement yaa xam karité dara gënu ko ñëpp xam nañ ne dafa baax si yaram dafay mm. dundal peau li muy def ci yaram bëri na même karaw foo ko diw si si si sa yaram rek mm-hmm. di nga ci am mbégte mm-hmm. mami tout sànq mi may tooñ dama mm-hmm. tey indiwoo bi <laughs> waaye tey bii laa indi <laughs> daal ci plateau bi parce que xam nga karité yi baax na ci ñun tey noir yi waaw moo tax nag xam nga man euh, comme ni kay ya xam di waxe à chaque fois fep lay guen mhm. tay ma génnee si bii <laughs> suba ma génn si yaram bu rafet parce que yaram bu rafet fogna légui ñun ñepp ka bëgg euh dam bi mi ngi koy wax néna légui diw yu bon yi yàq na yaramu jigéen ñi parce que jigen ñepp dañoo bëgg manam lèr euh, après dañuy utiliser ay hydroquinone et tout te baxul ñepp xam nañ né day yak yaram mom mhm. nak mu tok xalat né il faut mu defar lo xamante dina réparer yaramu nit ñi yàqu ak ñi mhm. nga xamné sen boss bos yàqoogul muy wut carité léegi carité carité ñëpp xam nañ bienfait yi si nekk léegi carité bi moom bu ko jëndee brut noonu su ñëwee nee na du ko sax euh, tàngal directement ci gaz parce que dafay Euh, génne kii yi si nekk yëpp. d'accord euh, ferñent yu baax yëpp day yàqu donc bain maré la koy def def ci ay huile mhm. après nit ku ñuul mën nako diwo nit ku xess mën nako diwo bo boo tay ay taches wala dara boo diwo diwoo day dañ. mom mhm. bama ma gis ko tay bu rafet la machallah mhm. néna pendant deux ans mi ngi koy diwo donc man mom gis na si njëriñ à travers elle. donc motax ma am fitu. tégal ko sénégalais yi. ak sénégalaises yi pour ñukoy utiliser léegi yaxam très bien en tout cas dañu la ci gërëm di la santé bu baax baax baax alors Michael Souma ñu gis sànq maa ngi wax retour aux sources alors c'est vrai que Carité yàgg na am mais ñun lég lég dañuy xaar ba tuba bi diko jël di ci def lu ne ñun ñuy soga yexi alors que je veux dire yi ñi jënd li yu cher mais yi produit naturel la ba paré baax na ci yaram xalé mag bébé góor ak ñepp tout le monde peut l'utiliser alors xam nga tubaab dafa ne les recettes de de grand-mère. Mhm. donc je pense que laaj na baax nañu delluwaat cosaan en fait. ah oui donc euh, suñu maam yi li ñu daan def à l'époque li ñu jàngaloon. Mhm. ñu si delluwaat. je pense que moo baax ci ci ñun. absolument parce que léegi euh, àdduna euh, dafa dafa dafa développé ba nga xam ne ni. oui lu nekk la ñuy diwoo. Mhm. lu nekk la ñuy jëfandikoo. te doo xam lan la en fait voilà exactement. Mhm. je pense que baax nañuy de léegi-léegi ñuy delluwaat cosaan. absolument mhm. alors li mu wax Michael Souma euh, Rougui dafa am importance nee na lu ne la ñuy diwoo te li ngay diwoo effectivement il a parfaitement raison euh, ni ñu koy defaree mais ñun xamuñu ko. alors que karité bi ñun ñoo ko moom. et puis day hydrater yaram quoi qu'on dise. effectivement yaa xam comme ni mu ko waxee retour aux sources. parce que quand même comme ni ko euh, femme bi waxee ci ci élément bi.

ñu ne ñu proposer le diw yoo xam diw xeesal lay doon alors que qui indi na solution bi je mhm. pense mën nga que diwoo sa yaram du si yàqu do diwoo hydroquinone te euh, retour aux sources ngay def te donc euh, te dafa xew sax légui naturel dal tout à fait mhm. alors euh, ce ce sa teint bi noir bi machallah momi tamit carité bi nga xamné xali indi nako dafa am pour teint noir pour xalé pour mak pour ñëpp xam nga d'habitude yaa xam yaa naa par exemple man karité kese dafay assécher sama peau maanaam da koy wowal. d'accord donc le fait que mu ajouté ci yenn huile yi. ak surtout le fait que mu def ko euh, bi mu koy traité mu def ko ak bain marie. Mhm. c'est-à-dire day dugal karité bi ci biir euh, récipient. def ko ci biir ndox bu tàng. Mhm. donc du am contact directement ak flamme bi. Mhm. loolu c'est très très très important. très bien parce que peau noire daf ko étudier en fait. voilà donc jël na temps am et puis peau noire xam nga ñun ñun peau noire comme ñun ñooy genre poubelle bi lu ñu jël rek xëpp ñu. tu vois non lu ci bëri nag loolu lu ñu jël rek xëpp

waaw man rek xanaa dinaan euh, rek sama mbokku jigéen ñi mën nañ dem seeti Khady elle a la solution. pour mhm. toutes les peaux kon daal naka ñëpp dem seeti. très bien mhm. Khady di ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax xam naa ñun itam dinañ waaxu dem ba foofu euh, parce que yaram yi faaw ñu defar ko mbokk yi euh, dañu leen di gërëm di leen sant waaye nag di xuus si li nga xamante ne bi moom mooy conseil santé tey ñu dem xool rek rugi ak spécialiste ñu muy àndal lan la ñu indil mbokk yi dellu waxtaanee ko. prostate benn cër la boo xam ne ci góor lay nekk te euh, euh, cër boobu dafa nekk ci yoonu saw bi maanaam ci suuf poftan bi foofu lay nekk euh, góor ci góor rek la nekk mais cancer de prostate nag feebar yu bari mun na am prostate boobu Euh, donc cancer de prostate cancer de prostate nag mu ngi faral am mag ñi li nga xam ne dañoo commencé am euh, cinquante ans jëm kaw si ñooñu lay lay lay cancer de prostate di di di am daal léegi cancer de prostate comme yeneen cancer yi maanaam dafa am ay genre tumeur boo xam ne day développé wu ci ci ci kii ci prostate bi maanaam benn neewi neewi la moom mooy nekk ci prostate bi mais neewi neew boobu la ko différencier ak yeneen neewi neew yi mooy dafay law su xasee ba am rek day commencer di di évoluer di law jàpp cër yi nekk ci kanam ci ci ci wetam ba pare mën na yéeg tamit ci kaw jàpp euh, yax yi wala jàpp euh, dënn bi genre yooyu donc day day law symptômes yi muy indi ay problème saw la mooy saw bi di jafe génn wala nit ki di saw lu bëri di jóg di dem di saw di saw lu bëri te mu am plus de cinquante quarante cinq ans wala cinquante ans jëm kaw su boobaa loolu mun na yaakaar ne am na problème prostate lu ñuy conseil góor ñi nga ñi nga commencé nañ mage tuuti dañu wax su nekkee race noire nga xam ay noir lañ loolu ay études yu ko prouvé la ci États-Unis gis ne ñi nga xam ne dañuy dañu am peau les noirs afrique américains dañuy faral di def plus cancer que Touba bi nek foofu ba paré ñom seen cancer mo gëna gawa gaaw ci ñom que ci Touba bi motax ko xamné dafa am peau noir lañ koy naan il faut muy euh, dépister wu à partir de 45 ans ñeneen ñi nak à partir de 50 ans légui dépistage bi nak ci urologue yi ñoo koy def euh, dañuy examiner prostate bi ak tamit defal analyse bo xamné analyse laboratoire la ñu tuddee ko PSA. si ñaar yooyu daal lañuy ñuy jo la ñuy xam ndax feebar bi commencé na si moom wala commencé wul si moom fekk boobu amul benn lu mu yéeg ci yaramam. ku ko xam ne commencé na am cinquante ans wala quarante cinq ans yi ma wax su ñëwee ñu defal ko gis ne amu ko léegi dañ koy wax chaque année chaque une fois par an rek la koy ñëw ñu defal ko ko pour xool ndax am na ko wala amu ko. koo xam ne diagnostiqué nañ la xam ne yow cancer la day day laaj yeneen analyse yeneen investigation pour xam. feebar bi fan la toll moo tax nag <laughs> nit ñi moom euh, ñu diagnostiqué ko stade localisé rek moom mooy moom mooy kii bi mooy solution bi koo xam ne papam amoon na ko walla maamam walla oncle am donc ñooñu tamit ñooy ñoo war gën a war a teel a ñëw nag pour ñu xool yaram bi ndax amul problème cancer wax dëgg yàlla rogi dañu lay gërëm bu baax a baax ci li ñu indil waaye euh, comme nag ñun ay nit yu ñuul lañu. Mhm. te comme dafa am étude boo xamante ne bi nee nañ dafay faral di dal nit yu ñuul yi alors à partir de 40 ou 45 ans. commencer dépistage bi dafa am mhm. solo. ba pare nag def différen différenciation bi entre prostate ak cancer u prostate. parce que loo wax ñu naan mhm. man dama am prostate. alors que <laughs> voilà <laughs> c'est un problème de compréhension. effectivement parce que prostate bi glande la. naturellement ñëpp a ko am. góor ñëpp mi ngi ci ñoom donc mais feebar bi ci lalu mhm. moo tax ñuy wax euh, euh, cancer de la prostate mhm. te comme ni mu ko waxee rek euh, nit ñu ñuul yi mhm. dañu nekk ay personnes yoo xamante ne dañu am prédisposition bi naturellement loolu yàlla moo ko def donc dafay euh, dafa bari lu muy ñëw ci ñoom te ñoom lay gën a jàpp ni que der bu weex bi donc euh, ñu bàyyi ci xel bu baax comme ni ko professeur waxee mhm. euh, képp koo xamante ne daal yaa ngi gis symptômes yoo xam ne yaakaar nga ni mën na mën nga ko méngale ak symptômes yi ñu wax maanaam ngay saw Euh, saw bu bari ba di jog guddigi lu bari di dem di di tour ndox wala euh, tour ndox bi di calé manam ngay am problème pour mu guen hmm. wala buy guen muy and ak euh, li nga xam moy dret ah. wala boy sey tamit sperme bi manam ndox bi guen mhm. di am dret wala saw bi ci boppam ko waaw wala booy saw muy metti d'accord donc yooyu yep ay symptômes la yo xamantene ne mhm. euh, boo ko mu boku mu mu wala mu baña a euh ben bo ci gis wala ñaar bo ci gis nga daw saytu sa bop mhm. té laata lolu sax ya xam li gën moy bo xasee ba am 40 ans comme num ko waxé mhm. âge bi tamit c'est un facteur de risque oui. boo xasee ba am 40 ans jëm 45 ans del commencé di dem di dépisté wu. Mhm. maanaam ngay saytu sa yaram ci urologue yi nga xamante ne ni ñoom ñu ay professeur lañ. ñoom ñooy xool ndax am nga ja doomu jàngoro bi mi ngi ci yow. wala mhm. nekku ci su nekkee nekku ci. nga def ko chaque année. Mm-hmm. nga dem def ko. Mm-hmm. té nak nga bolé ci nak di tagat sa yaram parce que tamit euh, ay facteur de risque la. Mm-hmm. nit ki warta tok rek né man du duma du ma du ma sport dafa bax xam nga dañ koy wax am ñoo xam da ngay dem am benn feebar. ñu digal lako alors que waloo tok ñu digal lako muy jigen muy go. da nga ko def. parce que pour que fièvre bañ la si fekk ci donc cancer bok na ci yo xamanteni sédentarité bi euh, manque d'activité physique bi mën na installé wu obésité bi mën na ko favoriser ah ak tamit di euh, euh xool sa alimentation bu baax xam nga mën nga bañ sax reuy mais ni ngay lekkee baaxul. sank ñu ngi koy wax. santé ci assiette rek la né effectivement donc graisse bu bari bi calories yu bari yi nga xamantene ne ko dépenser par le sport wala mm-hmm. par euh bép activité bo xam dalay permettre nga yëngal sa yaram. Mm-hmm. lakk graisse yoyu noonu. Mm-hmm. donc euh, daf dang ko war daf la war. très bien li nga xamné aussi moy fruits et légumes. chaque fois day ñëw.

xamante ne am na ko am na kooku day war a gën a farlu ci boppam mm-hmm. dafa war a gën a farlu ci boppam di dem def dépistage mais aussi di euh, xool yaramam moom ci boppam très bien voilà alors euh, Michael Souma dafa wax lu am solo te je pense que il est important que sénégalais yi xam ko ak africains yi parce que ñu ne peau noire ñoom euh, dañuy faral di am loolu alors malheureusement nag ñun on n'a pas cette culture di def ay bilan amul mm-hmm. culture dem l'hôpital ni ñu koy waxee wala nga dem l'hôpital rek fekk lott nga dal complètement mm-hmm. waaw xam nga xam c'est vrai que xam nga hygiène de vie dafa baax ci ci nit mm-hmm. mais hygiène de vie tam dafa am euh, il faut nga am les moyens aussi pour euh, enfin il faut avoir les moyens de sa politique mm-hmm. comme on dit donc hygiène de vie boobu il faut nga am les moyens pour euh, nga mën ko pour mën jaar yoon en fait euh, donc c'est pas toujours évident. Mhm. donc, je pense que les conditions, mhm. il y euh, a quelquefois, mm -hmm. c'est pas toujours évident parce mhm. qu'il faut que les moyens suivent. C'est une, question de moyens en fait quoi. Mais, mais aussi des fois, euh, euh, dit, Didi, Michael question de moyens, mais il a parce que je pense qu'on a aussi des produits, nous avons bi baxna, te ñun bëggu ñu lolu, ñun dañuy jéggaani nenen. Alors, côté exercice bi muy wax, mais dox mën na bo amul lo duggé salle, nga dem dox. Bo amé lo nga mais li ñuy par exemple, je veux dire am na loo xamante ne bi mi ngi fii dafa baax. Mm, bien sûr fruits et légumes kay am nañu ko. am nañ ko te te am na période bu nekk ak li di am. donc mm-hmm. euh, période bu nekk ak ni nga koy mën a jëndee donc euh, mi ngi nekk ci marché bi. Mm-hmm. Euh, période bu nekk ak légumes bi gën a bëri buy gën a yomb mën nañ koy utiliser comme les fruits aussi. Mm-hmm. ba pare sport bi tam dañ koy war a di gën a absolument di ko def tout le temps ba pare ñun dañoo ragal defi dépistage. loolu moo gën a nekk problème bu Sénégal. est-ce que c'est tout le monde qui a les moyens d'aller acheter des fruits et des légumes aussi. non mais

Ah, ah yooyu yëpp ay fruits la ak euh, légumes yi aussi. légumes dafa tuuru marché. Hein. non dañ ko bëggul problème bi mooy dañ ko bëggul. ñun yu cher yi lañu cher yi la bëgg. ay pomme banane raisin. loolu la nit ñi defal mooy fruit alors que yi fi ne solom solom dafa baax. donc euh, dinañ ci ñëw sax après euh, li nga xamante ne mooy nutritionniste yi. dinañ ñu jox après loo xamante ne. y a Mansour le cameraman qui me dit sump aussi. voilà sump yooyu dafa baax am ci tension yooyu yëpp dafa baax alors damay <laughs> dem léegi lan ngay lan ngay terminer parce que <laughs> euh, man daal li may ñaax dépistage effectivement important parce que diagnostic euh, tardif bi yaxam day tax euh, li nga moi ne Barbie linga bi mhm. li nga doon ne dafa dafa metti mënoo def mhm. pour mu la dal mhm. Euh, c'est une maladie bo xamantene elle est sournoise déjà. bala nga koy xam bala symptômes yi di génn day fekk lalu na ba pare. c'est trop tard donc ñi ci bari bari bari bu fekkee ne yaangi faral di saytu sa yaram wala di dem di def dépistage bi dina la permettre nga teel ko xam. d'accord mën ko téla a très bien mais su fekkee ne dem na ba symptômes yu bari dal di lalu. day mhm. fekk ne c'est trop tard donc dañ lay euh, fexé dal mhm. ñoŋal sa dund ba nga xamantene dal di nga di nga am ben ben kibi mais aussi euh, lu ci gëna important moy Euh, nit ku nekk bu fekkee ne yow ci li nga nekk euh, yaa ngi ci. da mhm. nga fexe rek ba nga xamante ne.

madame Régie dans le Mamito, Wow, euh, euh, Mamitou euh, Taïti, ci affairage bi fan la jëm alors Affaire à jouer, c'est plus africain ah que européen wala mu nek États-Unis ak yoy très bien parce que tay dinañ wax ci wa Sénégal. dañu mhm. wax aussi ci wa Mali. d'accord donc li ñuy euh, li may commencer. ni may doore waaw. Euh, moy euh, ben artiste malien. waaw mooy quand même une des stars maliennes moy Sidiki Diabaté mom lañu ñu gis à droite. xale bu jigen bi ñu gis à gauche nak ben chroniqueuse la ci la ci télé nationale bu Côte d'Ivoire. ah elle s'appelle Asela Zeda d'accord donc dafa def ben parce que Sidiki Diabaté dafa ben xalé bu ko mayoon ben tableau. waaw maanaam peindre ko ci légui nak mu def ben poste sur de réseau mhm. euh, remercier ce, jeune artiste peintre donc nous sommes peintre mhm. P I N T R E classe buzz émission euh, peintre ko binde mais P A I N T R E

collé ko ci ben ardoise bind tër à côté. donc ah. muy peintre. Ah. <laughs> donc euh, et et aussi Sidiki Diabaté aussi. Euh, ah. li ñaan surfer sur la vague am ci am ci. Euh, am am am fulawu. waaw profité ci loolu. Mhm. lancé benn challenge. waaw day def buzz. voilà donc génneel ko sax son. ok di jarafat ko ne xam na ni. dëgg kat la tooñkat tamit xam nga ñew mele wala danse pardon du coup euh, mu affaire ne en humiliant. parce que c'est de l'humiliation mu bëggoon def Sidiki jabaté far mhm. euh, et aussi c'est du français du suñu langue de base. exactement langue donc dañ gor gor rek. surtout ah. bu ci mais par contre faute en wolof bah, écoute c'est pas grave. parce que tout simplement wolof xam nga man corriger wolof parce que peut-être sama wolof gënul sa bosse. Mhm français jang nañ ko école ak yoyu mën na la ci doser wala mën nga ma ci doser. Mm-hmm. so défé faute mën na la corriger. alors que wolof par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. man mënuma corriger Didi parce que Didi <laughs> suñu wolof yi dañuy taxalé rek quoi. mais man dama dégg wolof. voilà si si da nga dégg wolof. alors buñu ñu Mali ci euh, Sidiki jabaté dañuy enchaîner aussi euh, benen euh, actualité locale. oui boobu suñu fii ki ngeen di gis moy Bass de Boss comme on l'appelle. Canabass muy bu Buzz Lab alors donc tu as fait, un parce que ça fait longtemps que ko quand même parce qu'il a parlé de sa famille de sa fille il s'est marié il avait un enfant Les dernièrement, dernièrement fait un son un Vito d'accord Il a fait un son bi mhm. clash clash fait hip hop donc clash mhm. mhm. Buzz Buzz euh, dem euh, le label Nickel waay waay. ba ban label la nekk léegi. Euh, non dafa dafa dafa jóge won dafa jóge buzz mhm. mu dem Kayzit pardon. donc bi mu démé Kayzit après léegi lol bon ça a pas été très pris par cannabis mais cannabis daf ko dencoon léegi nak bu muy génnee euh, son son single là ak boy bi profité ci clash zo wax ko tay wax yo xamante dal xam nga mhm. xawlo ki dal mhm. clash ko ci physique clash ko ci lu baree bare zo mi prépare préparé grand théâtre donc Nini normalement c'est qui prépare l'événement, événement. mooy def clash pour moi, boppam mais là c'est cannabis qui prend un peu les devants. Mhm. clash Omzo donc moi, ko je may ko il bu mhm. y en a qui se disent est ce que du arrangement parce que Canabasse ci benn rajo en tout cas il a un très bel album euh, Omzo Dollar. tout à fait j'ai écouté. Canabasse ci benn émission radio, bu ko invité woon. il disait que waaye dafa bëgg Omzo et tout def ko kii mais le fait que mu demoon Kézit sans pour autant accord label donc mon donc de dafa mon ben dedans, mon mhm. mu ko dencaloon. mais pourquoi attendre que boy bi di di préparer voilà grand théâtre pour ñëw indi bien ça peut lui profiter parce que am na ñu parti. en tout cas ça lui a toujours réussi. Euh, exactement le grand théâtre Omzo daal. am ñu jël parti faral Omzo ñi faral Kana. donc actuellement c'est un peu euh, ça fait le buzz sur internet. donc dinañ ko dinañ ko top un peu pour voir fan la jëm. Uh-huh. Euh, ak Omzo dina effectivement alors si ñu jógee ci Kaana Bass ak dañuy bon bii dama ko juste réservé pour ben cette femme que vous voyez. oui. elle s'appelle Angela Bassat. C'est une actrice américaine, actrice, productrice. D'accord. Elle a 61 ans. Ah Ouais. <laughs> really? <laughs> yeah. Wow. Elle a 61 ans. Mm -hmm. Donc, euh, wow. photo wow. une polémique mm. parce que comme réaction, oui. oui. parce qu'elle est noire, elle s'entretient, la peau, moins de maquillage, moins de... plateau mm-hmm. Mais, euh, euh, comme les rugi don wax légui sport bi ñi don nagas euh mu koy tuddé bu ñuy ñaxal fayda euh, dafa am solo mm-hmm. ci ci ci euh, ci ci wërgu yaram doomu adama donc mm-hmm. cette photo bi c'était juste ben genre motivation motivation pour motiver sama genre gi li nga xam ne ça fait 6 mois chaque mois ñu ni bon bi laay commencé fort <laughs> donc que ñu ñu dem défi sport ah, ah. que ñu toppatoo suñu yaram qu'on mange bien que ñu nelaw ah, surtout je pense que war nga mën a ñëw ci nelaw pour sama genre et <laughs> <laughs> voilà euh, donc c'était juste euh, ça comme affairage histoire de euh, juste débuter débuter un un, un, bon week-end très bien alors c'est vrai qu'on va débuter un bon week-end et on essaie aussi de faire du sport c'est important faut faire du sport manger bouger loolu loolu la tubaab bi wax comme ni wax manger bouger très bien alors dañuy sant di gërëm bu baax a baax euh, Rougui parce que dans quelques instants dinañu recevoir invité Michael Souma euh, Rougui macha allah toute bien habillé kan ngay remercier Rougui. Euh, yaa xam dama leen di remercier yéen ñi nga xamante ne comme ni ma koy waxee saa su ne yéen ay neexal week-end bi. Uh-huh. di remercier le professeur Yaya Sow. Uh-huh. mi nga xamante ne mu ngi nekk Oji hôpital Dantec. di leen remercier moom ak spécialiste yi fa nekk yëpp ñoo xam ne ñoom ñoo ñi jox conseil yi ñu ñëw jox ko askan bi. yaa très bien ñu ngi lay gërëm di la sant waaye nag di fa jaaree di ñaanal vraiment bonne santé à tout ce qui nous regarde foo leen mën a nekk ci àddina bi yal na wir wér comme ni ma koy faral di wax Rougui merci beaucoup ça a été un plaisir Mboki, nous euh, ñu dem régie dellu si waat recevoir nak invité Michael Souma waaw Michael Souma nous ma def rek tout le bàyyi ah nga dalal suñu invité bi Mhm. voilà donc euh, Yaha merci beaucoup. Mhm. Et euh, tay comme ni ma ko sank euh, suñu invité mu ngi Dia. Mhm. ñu koy Chadia c'est son nom d'artiste. Hein. alors mom nak ce qui est intéressant c'est que mom elle a appris la musique dafa dafa jàng musique. donc elle est allée au conservatoire. n'est-ce pas de la maison de la culture Elle a appris fa guitare Elle fa woy les techniques vocales. Euh, parce que je ah, pense que euh, wooy yemul rek ci mais mhm. c'est bien que nga xam nga xam technique vocale. pendant de longues années. Ah. Et donc le résultat, je pense qu'il est là aujourd'hui. Très bien. Euh, en 2016, a fait un premier single. Mhm. Et donc là, en, 2019, son, deuxième single pour euh, nous présenter présenté fi sur le plateau n'est-ce pas de Tam Tam. et en plus avec sa guitare je pense ah que. nous euh, nañu euh, may n'est-ce pas son en live. mais la première question moi Chadia uh-huh. est-ce que waykat nécessairement war na instrument. waaw salam alaikum. Je suis di de di Je ci invitation bi. Uh-huh. di kontaan bu pour won li nga xamante ni moom euh, mom ci yoon bobu lañ nekk. Mhm. Euh, instrument nag dafa baax ci artiste. Mhm. man noonu laa gisee parce que mhm. da lay dimbale. ci ay fausse note. wala genre nga mën a woy ci gaam nga mën a woy ci yenn tonalité yi. donc euh, njëriñ boobu la am. te boo ko jàngee dina am lu lay apporter sa musique. très bien ñaata nga jàng waaw def naa école 6 ans. Mhm. ba tey maa ngi continuer di def euh, cours particulier mhm. parce que njàng bi daf ci am solo. da lay mhm. dimbal sa côté voix. sa côté musique nga mun a xam fi ngay euh, daanale ak fi ngay commencer. mais lan moo la dugal ci musique en fait. <laughs> waaw bëgg-bëgg la dama ko yàgg bëgg. dafa am ku nekk sa famille kuy def musique non. non suñu famille sax xaalpulaar lañu amul kenn koo xamante ne da ngay woy. d'accord donc man rek maa ci judd sopp ma ne xaaral mu def musique. Uh-huh. di ci gërëm aussi sama papa ak sama yaay parce que ah c'est bien ça donc pourquoi pas très bien. Ah, alors donc euh, peut-être. ah euh, on va regarder le clip hein. Hein. ah je veux bien euh, hein. je veux bien voilà alors on va regarder le clip d'abord. c'est ça ok c'est parti. malano be asasumata de radio gudi de la lilu mudon wahma wahma soma mere wet soma sore kai jigema you are Anak ak Michael alors c'est vrai que nag euh, voilà clip bi euh, euh, jot nañu ko sétane mais machallah elle chante bien. belle elle chante bien Comme comme ni ma ko rek c'est vrai que lu nek jang def ci bax. la donc c'est vrai que mun nga mun nga mën jouer guitare. wala mun mhm. nga woy mais mhm. nga dem nga perfectionné wu. ci li nga xamné ne bëgg nga ko. je pense mhm. que c'est c'est toujours en plus. n'est-ce pas voilà alors c'est vrai que moom nag tey na fi ak guitare je pense que euh, nous wane tey un live et un direct lu monde de la ci musique. Ah, très bien ñu ngi lay ñu ngi lay seetaan Chadia. nekk waru waruma tere liggéey liggéey mi wareef ci ku ne. Vamos desmacagone foma feka yeah. Magi gorgorlu Di gorgorlu Di gorgorlu Magi gorgorlu Di gorgorlu Walang mabay sa malood May ben kumaya Wala di manyakal fayda From a the sea Ditas the sea Ditas the sea tàcc bu baax a baax euh, euh, Michael Souma. alors jàng na way euh, mi ngi def instrument mais léegi nag bind bi yaa ngi ci bind bi aussi. waaw comme ni ñu ko waxee rek musique moom dafa yaatu. Mhm. liggéey bi ñu ngi jéem dañu mën. di bind parfois ñuy euh, parce que man ci refrain laa njëkk euh, basé wu donc su may def composition damay mhm. njëkk am refrain bu baax ba pare mhm. ma soog a def sama couplet mhm. donc lu ci bëri aussi mën naa bind loo xamante ne damay am sama benn xarit boo xam ne dafa mel ni defee nii comme ku ci mel ni Ndofène Ndofène xam naa ñu bëri xamuñu ko fi Sénégal parce que moom euh, waaw Grand Yoff moom dafa may jàppale ci lu bëri ci côté liggéey boobu. ak yeneen musiciens yu mag yëpp. parce que bu ma ci xamul dama lay jege. yàlla dimbal na ma am ak ñoom affinité bu bu doy waar boo xamante ne ñoom ñëpp sawar nañ ci jàppale ma. donc lu ma ci bëgg rek dañ may jàppale. très bien Michael. Mhm. alors donc euh, c' est vrai que c' est bien tout ça un musicien il la encadré. di la mhm. jàppale di la dimbali. Mhm. mais je pense que en matière de musique euh, laaj na tam euh, accompagnement. Mm -hmm. euh, sur le plan management sur le plan promotion. Mm -hmm. est ce que dafa am ñu nekk sa gannaaw yu lay jàppale yu lay. Euh, waaw instant bi maa ngi liggéey ak titof moom moo def euh, sama production moom moo produire euh, jege ma. son bi ak vidéo bi moo arrangé aussi. yëpp ñu ngi koy nuyu euh, Titaf salut <laughs> mu ngi def liggéey bu rafet ci ginnaaw Chadia. Mhm. parce que Sénégal moom musique yomb fi. Mhm. dama koy wax surtout nga nekk jigéen nga bëgg ko. Mhm. donc dina amante ne ñoo xamante ne dañ lay gëm ci li ngay def am na ñoo xamante ne duñ ko gëm. donc man li ma gën a ñor mooy man maa ko bëgg. gëm naa ko donc dama ciy def li mu mën. très bien côté management li ci bëri man maay Mhm. man alors comme ni nga ko waxee rek euh, góorgóorlu dafay a doon góor. te Michael Souma ngi remercier. parce que à chaque fois découverte de dafay am solo mhm. euh, vraiment euh, yaa bu musique sénégalaise merci Yaham. Euh, en tout cas di ko encouragé. Mhm. Euh, comme ni ma ko tàmmee waxee rek euh, mhm. xam naa du ñàkk mu dellu si waat fi. Hein? incha voilà très très bien alors <laughs> le temps que may may def tour de table nous nga am dara commencé nii rek ma émission bi alors Didi maa ngi lay remercier Dila la sant bu baax a baax a la jox rendez-vous la semaine prochaine alors Didi kan ngay remercier tey. merci Didi te ñu safoo toog di ñu seetaan. Mhm. di nuyu sama yaay di ko beral nuyo ak euh, sama sœur yi ak sama frère yi. di nuyu ñëpp daal ñi nga xam ne léegi dañoo bëgg bon plan dañ may woo pour ma ñëw defal leen. bon plan maa ngi leen di nuyu bu baax. merci beaucoup di nuyu suñu maman euh, Mère Nella alors di remercier Mamitou euh, toujours un plaisir de te recevoir comme di remercier Mamitou maa remercier ñu ma plateau bi di la remercier yow ci gentillesse bi sourire bi accueil bi et tout mhm. euh, di profiter juste di remercier toujours euh, Norey Norey Ndiaye bu ngul madame Fantasika mhm. elle a mis une équipe spécialement parce que à chaque fois je mes di du corps. parce que mhm. quelqu'un qui croit en toi pour la première fois que tu fais sur la télé mu mu jël ay nit jox len heure la li nga ak beaucoup de sourire beaucoup de légèreté Norey, merci beaucoup di remercier aussi sama ay collègues yu nga xamanteni ñomay aider à ce que me préparer les chroniques des fois faute de temps de Dokarda ak Ami Bité à euh, Benet Africa merci beaucoup merci aussi à Eva Rassoul qui m'a aidé des fois à euh, préparer les très bien ni ngi nuyu bu baax di remercier Nogay Je di remercier Tunkara di de gros bisous parce que moom tamit nee na bëgg noonu lool la raw alors mbokk yi may remercier euh, madame Fatou Dieye mi ci di Sali Anne Salon La 77 537 67 68 nous jox rendez-vous Inch'Allah, très prochainement toujours sur la RTS 2 pour une autre émission émission euh, Tam Tam waaye nag euh, dañuy leen di euh, tàggoo ak lii di remercier encore une fois Chadia ça a été un plaisir merci beaucoup au revoir à tous c'est parti biir lolou ci tago, bi nak mu doon ay témoignages suñu ay collègues parce que suñu directeur monsieur Omar Ba donc euh, liguey ak ñun liguey bu rafet di dem retraite donc gis ngeen témoignage yi euh, vraiment ñi ngi ñi ngi koy ñaanal jàmm ak salaam euh, liggéey bi rafetoon na vraiment sant nañu ñëpp ñi nga xamante ne bi teewoon nañ fa macha allah wax ñi benn la on l'a dit hein, vraiment ay papa la pour ñun et c'était beaucoup d'émotions et vraiment au nom de Fadjé de Lamine Fall de toute l'équipe ñi ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. Euh, yal na noppaliku bi jikko ak njabootam bu baax a baax merci beaucoup tonton Oumar comme on l'appelle affectueusement we love you too much thank you au revoir. Andani mitinani mitawaka minanani kodum woni konedo moja wadata Kudum wani kone do mojo wadata Kudum wani kuindi mago Kudum wani kuindi mago Mi andani mitinani mitawaka minanani Kodum woni kone do mojo wadata Kodum woni kone do mojo wadata Kodum woni koindi magu Kodum woni koindi magu ne do na halay banu ne do ko boni nyande kala nana ne do na halay banu ne do ko boni nyande kala njiya ne do na halay banu ne do ko wesani